y no caí ziar di leen bëggee ñuy suivi sur Kewel Info du nuyu kilifa diine yëpp kilifa aada yëpp responsable moral bi daal di Moussa Soudira Moussa nag ñu fii si gàddaaya ñu seet ki nga xam ne moom mooy euh, Boy Diop gannaaw nag ba mu war a bëree combat am ak caatu ngéwél borom 9 combat 9 victoire borom soow mi mu war a bëri la 31 décembre mu nekk journée Fallou Ndiaye production di ci nuyu nag ñi ñu àndal ñëpp ah Cheikh di ko ziar di ziar Zougule di ziar ñi mu àndal ñëpp dañ koy bàyyi mu ñu dugg si waxtaan bi. Aca Diop de maa ngi lay fay di sant yàlla di julli Seydina Mouhamed sang sang yi xam nga di sant sama ñaari waajur bu baax a baax baax di nuyu sama mag sama xarit Baye Sall xam nga di nuyu magu sama copain Zoungale Jandal Grand xam nga di di la nuyu yow tamit di nuyu sa éléments yi xam di nuyu Fallou Ndiaye promoteur maa ngi nuyu baax a baax a baax di nuyu waa Yëmbal benn baraak Kër Massar Malika xam nga ñaaka ñaaka rob Tivaouane Pël xam nga diaspora bi borom soow bi nekk rek maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la siyaar di jox sa wàcci waay xam di ñaanal la ñu nekk si kaso yi suñu borom jëlee leen fa bañ bañ faa dellu ñu nekk si hôpital yi yàlla suñu fuggi seen bopp xam nga ku nekk si jafe-jafe rek yàlla la suñu borom taxawu aar la sam la xam nga loolu la ñuy ñaan daal di ñaan si di ñaan si dëkk bi jàmm baax baax baax baax baax baax hmm. borom soow mi mais dafa mel ni léegi soow mi koy sotteekoo bari na de ah soow mi chaque jour chaque chaque laa ma fem mbër mais doo dégg kenn borom soomi Diop doo rek ngay dégg borom soomi loolu yàlla moo ko dogal quoi dañ koy sant yàlla bu baax baax baax. Diop borom neuf combat neuf victoire di ñaan yàlla mu gën yokk ñu gis ne Diop dëpp ba mu jógee ci combat ak Pierre Diam avant loolu am na ay combat yu ko doon proposé après finalement mu jël ki nga xam te ne caatu ngewal da nga jàpp ne caatu ngewal moo gën a yomb wala combat yi la doon proposé lan moo tax combat yooyu kiiwul ndax gisaal a combat ak di Fall ak yeneen i combat finalement nga jël ki xam te ne moom mooy. Euh, Thiat euh, euh, Nguéweul waaw ah, Fatma Dia boo ko gisee ñun ay ndaw lañ te it sport lañ fi nekkal ku gis saison daaw xam ne def nañ 4 combats si saison bi te loolu yombul te ñun bu ñu sañoon chaque dimanche dañuy bëre dimanche bu ñu toog bëréewuñu rek ñu ngi perte waaw ah, kon ñun lam mooy suñu liggéey lam mooy suñu métier bu ñu toogee ñu woo ñu téléphone proposé ñu combat bu ñu fayee lu ko jar te bu doon adversaire boo xamante ne tamit suñu naataangoo dañ koy jël bëre moom xam nga Thiatou Nguéweul adversaire la comme yeneen adversaire yi xam nga mënul weesu fay ma xaalis mu jaral ma ma jël ko bëre moom avant moom sax am na yeneen adversaire yu ñu ma doon proposé yàlla dafa def antuwul waaw dañ koy a baax ndax suñu borom lu mu def rek dafa gën si jaamam waaw ñu jox ñu caatu mu nekk suñu adversaire bu ñu respecté tamit xam nga bëre bëre suñuy grand xam ñu jël ko war a confirmer incha allah rabbi le 31 décembre ñu ngi borom suturaal ñu ma ñu si kaw caatu ngéwél beneen bi mooy da jël caatu ngéwél coow lu bari ñu ne yéen ñaar règlement de compte la yow ak Caatu Ngéwél leen bëre da ngeen a xamante dundu milieu wala lan la ndax seen combat bari na problème dem na benn instant sax ñu ne Caatu Ngéwél dafa naroon a delloo avance yéen ñaar lan la. waaw mais loolu du ay règlement de compte sax xam nga moom dafa bëreeg samay grand yàlla dogal moo am ndam ci seen kaw waaw man ma nekk jeune nag mujjee juddu si gox bi yàlla def may def ay preuve ba làmb boole ñu kon man jàpp naa ne du règlement de compte parce que cadre sport la rek waaw xëy na ñooñu noonu suñu borom moo tuddoon day am ndam seen kaw rek mu am ndam seen kaw man maa ngi ñaan suñu borom ma ndam si kawam rek man moom yàlla dafa dogal ku may moom da am coow force ndax coow li maa la koy may ndax. lu mu am am coow am coow xooluma ko si coow xooluma ko si dara man yàlla suñu borom moo may loolu du man nag du sama mën-mën du sama dara lépp yàlla la xam nga loolu moo tax nag man adversaire bi mooy bëreel coow li dama siy tibb may la si rek mais bu ñu demee bu ñu demee le jour si man na nga waat sama coow teewaat ko rek. Mhm. ñu gis ni Diop 2 macha allah su bëree bu neex bu feccee bu neex ambianceur la mais Diop 2 tey suñu ñëwee tuuti si sa ba nga duggee ci làmb yàggu mais def nga performance teg la ay victoire macha allah tey loolu noonu lan mooy secret bi. waaw secret mooy maanaam ñi nga war a jox cër nga jox leen cër ñi nga war a àndal nga ànd ak ñoom parce que mbër day am gétt mbër du fuñ tourné gis la fa. mbër fuñ tourné fekk la fa xam nga bu boobaa sa image day late quoi te mbër da war a di fonk sa image xam am say am di jàmm am say nit fonk say nit képp ko nga xamante ni maanaam bu xeebal dara bu xeebla woon benn tour famille sax demal waaw ah, parce que dagg dagg bee moo gën a métti ka nga déplacé wu dem kër nit waaw loolu dong la ak respecté suñuy coach su suñuy entraînement nekk su suñuy ginnaaw frère nekk suñuy ginnaaw grand waaw li xale bi moom jox ko li mag bi moom jox ko waaw loolu dong la loolu dong moo tax suñu borom teg ñu loxo nag ba fii nii waaw mais di suñ mën-mën di suñ dara lépp yàlla gis nañ Diop de macha allah dafa gën a màgg tey euh, ci côté yokk gis nañ macha allah da nga yokk caatu ngéwël la wala yeneen adversaire nekk sa kan. non man guddi yi ma toll si làmb du ma am bu yomb waaw parce que fi ma toll si làmb parce que làmb looy gën a dem di gën am ay adversaires yu tànk di gën a am ay adversaires yu métti léegi nag. champion xam nga ay combat préliminaire yi ngay bëre foofu da bëre pour defar sa carrière man bëre naa ba defar sama carrière ba tollu fii léegi ay combat confirmation laay bëre pour lamb gën ma gëm pour lamb gën ma bàyyi xel te incha allah rabbi yàlla suñu borom mu may suturaal saa bu ñëwee rek dinañ xam Diop 2 màgg na ci bëre Diop 2 màgg na ci xeex Diop 2 màgg na ci lépp lépp lu nga xamante lamb baaxoo na ko lamb laaj na ko rek Diop 2 mën na bëre te chaque jour day surprendre amateur yi te nan ngay waajee caatu ngeen. caatu ngeen li ma la waxoon rek du ma si jug ci laay delluwaat ni ma doon waayee sama yeneen adversaire yi dara changé wu si yàlla xam na ko dara changé wu si. est-ce que mës am adversaire bu mel ni caatu ngeen. ah bëri naa adversaire bu mel ni caatu ngeen ba temps yi bëri na non bu nekkee di leen xam leneen la non bëri naa adversaire bëri naa adversaire bi ko gën a tàng fuuf ëpp ko kattan yàlla xam na ko. non loolu loolu loolu maanaam mu suñu ginnaaw mais man comme si question bi ma laaj ndax bëri naa adversaire bu mel ne Thiatou Nguéweul waaw bëri naa adversaire bu mel ne Thiatou Nguéweul bëri waat ak moom bëri waat ak moom ñu gën ko ah, yow man man loolu yëpp loolu yëpp amul problème mënumaa dem si bëre Fatmaja Fatmaja yàlla xam na ni billaahi ba may nekk booy laa ko dala wax nee naa cinq premiers yi daa ko bëri si làmb ji daa ko ñu ma bëri boobu boobu maa ngi nekk booy di ko wax soo xoolaatee samay archive si ginnaaw di nga gisoon di nga gisoon ni Diop 2000 wax na lii te ba tey moo nekk si man man ma bëri si làmb yombul dàq ma bëri si làmb yombul amul foo may xaar foo ma xaar ma fële feneen fa ci boo xaar ma daaji beneen waa ah, gis naa ko bëri na baa ba jaxal la bëri loon su ma jumul waaw yàlla may ko ci ndam di ko félicité di encouragé Baba Diakhar rek waaw gis nga làmb la waaw làmb la rek làmb la rek non man yow ci aringel daana sa sama turandoo ki ma tuddee sama bopp daan na du dara si làmb. di gën a métti. non loolu du dara si làmb. loolu du si làmb si làmb ñu ngi ñaan suñu rek waaw. est-ce que xaar ci beneen facette Diop 2 xeex ak Thiatou Nguéweul. ji ci Atou Nguéweul amul lu may bëre ak moom parce que man li may wane si bëre wane naa ko si bëre ba pare ci Atou Nguéweul tuur ko ba mu tàllee ko laay laa sekkal moom ji si ku moom ay bëre moom du ma bëre moom sama tànk bi yow Fane Madiame mosu nga ma gis arbitre prix bi may wane ay ginnaaw wala may dem si ay saako loolu mosu nga ko gis non mais dama la dem si ay saako di làqatu waaw loolu doo ko gis nag ci awti ngeen bu arbitre prix bi si kàttanu yàlla ak mbaaxam bi si yàlla yóbbu ak jàmm salaam fu taxaw dinaa ko fekk taxaw dinaa ko bu dee day ñëw dañuy daje day gën a neex rek ma daan ko su xeexee ma dóor daan te sax bëréewu ma damay xeex ma fekk ko fa man fu mu nekk ma fekk ko lo loolu day dara xale laa damay liggéey damay def trois séances par jour ànd samay kosu ku su mel ne ngàtte ngàtte baax a baax a baax a baax ma weer grand bu ñàkk kiñaan la xam ku baax billaay wallaay talaa bu la gisul sax daf lay daf téléphone xool si loo nekk maa sant tamit bu baax a baax a baax baax baax xam nga aw daal waaw mais lu mën a mooy caata ngéwél si kàttanu yàlla ak mbaaxam la 31 fu mu taxaw ma fekk ko mais ruube yaa ngi koy ruubee lan la yéen ñaar lan la da ngeen a bokk gel wala lan la parce que yéen ñiy déggante yéen ñaar kii naan ko gelu meer nga am naan ko nangam affaire yi ay ngeen ngeen taal affaire yi ngay tux yàmbaa kii naan gelu meer loolu lan la yéen ñaar milieu bi ngeen di dund réellement da ngeen koo bokk wala ngeen am foo fekken fekkante wala xam ngeen bokk coro loolu non bokkuñu dara man caatu ngel billahi wallahi taala mun naa toog atu yàlla xanaa muy bëre ma dem esa wala ma toog si télévision ko dara xam nga man jox naa jox naa sama jox naa sama adversaire boo xamante ni nii amaana du ma bëree yow sax bay balay jël ay seen numéro affaire pour man affaire tapet la te man te man ma sàcc wax la benn affaire boo xamul si man man du ma bëree nii sax bay seetaan ay combat am barke Seydina Mouhamed billaahi wallaahi wa du ma ko seetaan du ma ko sax waaw man du ma ko seetaan parce que man tàmm ma loolu man tàmm ma loolu ñii nii duñu ma bàyyi ma fen mënuñu ma seede man tàmm ma di seetaan ay adversaire man dama tàmm man li ma mën xam naa ne ñooñu mënuñu maa dab mënuñu maa dab man caatu ngel jox naa ko ci respecté naa xam nga juróom nag xëy na nag amaana suñu neeri ñoo tàngoon sax man maa ngi jégaluwaat au passage bu baax a baax a baax li nga xam ne moo jotoon a xew foofu parce que man kenn xamee ma yenn wax kenn xamee ma kenn mooy mais am na ay yoo xamante ñoom respecté wuñu kenn te booy bëri ñoom sax dañ lay jàll baat boo xamante ku ko seetaan du la respecté du la naw maa ngi jégaluwaat kullu go nga xamante wax nañ fi loo xamante ni ba yow sama adversaire ba yenn mooy di si génn dootul amati si àdduna loolu di ko tuubaat bu baax di jégaluwaat ñëpp xaw ma ko billaay xaw ma ko man sama mën a bëre rek laa xam a damay kontaanee cent vingt kilos du ma yóbbul dara ñooñu ko si kontaanee cent vingt kilos boo tëddee doo yeewu suba billaay wallaay wa taala xanaa mu daw te bu dee ma dàqaji ko bu dee ma dàqaji comme joueur joueur ak bal ma koy dàqaji dégg nga fu yow laa mooy bu arbitre ne bu la neexee yow mi ma ne de ma ne rek yow bu la neexee teel ko fu mu dalante mu tëdd si kàttanu yàlla am baax man bëree wàllu yaanu ma ko nekk xale bu ndaw di fooyee bëre yeroo si bëre màggee si bëre sama maam doon mbër Mayoro Fall ku ne xam na ko borom Guit Fall di nuyu wàlla sama waa dëkk waa Louga au passage ku lu kuy ñàmbur ñàmbur lay woo si lamb ji la 31 décembre bëgg naa ngeen tëj seen place yëpp ñëw dooleel seen traite seen rak seen jarbaat boo taxawee boo taxee boo taxee kër sëñ Aba Sall laa def laa def yu kër Mayoro la koy wan kon moom su ma bëree war naa bëri su ma su ma bëree war naa bëri di waa njabootu sëñ Aba Sall gi ñëpp maa lay nuyu ñoom ñëpp baax a baax a baax di nuyu sëñ Mayoro waa Ngid Fall xam nga gi ñëpp maa lay nuyu baax a baax a baax a baax xam nga lamb ji lu mën a xew mën a xew mooy Thiatou Nguéweul si kàttanu yàlla ak mbaaxam lu mu def day daanu bu la 31 décembre su bëree daanu nag bu mag nag bu mag si bis bu mag lay dee waaw ci gis nañ ni Diop macha allah mbooloo moom tarkaala dañuy ñaan yàlla mu gën a yokk ci côté mobilisation ak sa relation tamit ak waa yëmbalee gis nañ tamit heure boo xewlee say mag ñëpp ñooy taxaw waaw loolu au dama si nuyu waxle suñu grand frère yi nga xam ne ñoo jiitu si làmb suñu magu làmb yi ku ci mel ni général Modega xeebalul kenn bisam ñun bu ñu amee combat day teew parce que yaa ngi dégg Bulldozer maa ngi koy ñaanal ndam le 25 décembre moo na moo frère xam nga si mel ni ñoom Papa Dia xam sama mag ñoom Ama ma seen fay surtout Ama Dia aw ma fayam yàlla xam na ko day sonn samay bis xam nga papa ja tamit noonu xam nga mburu yëmbal yi ay booy malika su ma limee damay jum daal mburu yëmbal yëpp boo si booy ndaw ñoom si de dans cinq ñoom xamal ñoom buubaa yenn booy yëpp xam nga saakees moo nami moo frère maa ngi ko félicité dem si victoire bu mu am xam nga yëmbal daal ànd waa pour man ñun ñëpp benn lañ quoi te man loolu laa gis dañuy xàccandoo dañuy dóorandoo képp ku xewle da ngay gis say mbokku ñoom ñooy suñuy ñoom ñoo ñuy wot ñoom ñoo ñuy yoon bu waaw ah, te instant bi ñoom ñu ngi si tànk yooyu daal di nuyu waale yëmbal gi ñëpp xam di ñaan autorité yëmbal yi tamit ñu jàppale ñu ñu sonn nañu parce que ñun yëmbal fi ñu dégg yenn gox yi war nañu fa mën a dégg ñun ay ndaw lañ gëm nañ li ñuy def xam nga sàcc ñu fenn ñu defuñu dara loo nga xamante ni kuñ si fekk dañuy dañuy xeeb wala dañuy wala dañuy bañ a jox cër daal ñëpp jox nañu cër mag ñi jox nañu cër xale jox nañu cër ñëpp bëgg nañu mais à cause de lan yar teggin lañ wane xam nga bëgg nañ tamit ñoom autorité yi nga xam ñoo nekk yëmbal ñu delloo ñu ko muy suñu amee làmb ñu ñuy taxaw di ñu jàppale si béy di ñu jàppale si oto yi di ñu jàppale si ticket yi xam mbër mbër ko jàppale si loolu rek amatoo leen loo ko deseel xam nga le 31 décembre nekk jour boo xamante ne jour fête la 31 décembre dafa ni ñi ko doon bëre ñi ko doon bëre dafa bari macha allah ay mbër yu mag tey nga ñëw bëre ko Fatma Dia question bi ma posé ni question bu ma neex la parce que boo gisee bisu le 31 décembre ku feet la waaw te mbër yu mag ñoo si daan bëree kon ñun bu ñu yàlla suturaalee bu ñu bëree bu ñu bëree bis bu toll noonu bis boobu nekk na bis bu ñu jox cër bis bu ñu fonk bis bu ñu respecté bis bu ñu bëgg tamit bis a may suñ bu baax a baax a a a baax a koy sant yàlla bu baax a dafa nekk la fête maa ngi maa appel jeunesse yëmbal bi benn baraak Kër Massar Malika xam fu si ba teeru Diop doon nekk rek waa Jaxaay 11 b xam nga ñëpp maa ngi leen di ñaan bis boobu noonu bisu fête la képp ko nga xamante ne am nga sa gel wala nga am sa for ah am kuubul rek maa ngi lay ñaan ngir yàlla yonent bi nga bàyyi balaa muy jeex ngeen doog a dem feere seen 31 ak seen victoire incha allah ngeen ñëw wala bu la neexee fête bi ok Fatma Dia fête bi foofu lay tàmbalee fête bi esaat lay tàmbalee te ko te ku ne xam ne ni bis boobu xale ya koy bëree. ñëw xaar. non man aw ma booy man aw ma booy man lamb lamb mooy sama booy esaat may wax ak yow nii xam nga ku xam ne ni bis boobu la te it dañuy yàlla suñu borom mu may ñu jàmm kattanal ñu bis boobu noonu nekk bis bu nga xam ne bis bu gën si ñun la xam nga jeunesse yëmbal bi nag comme li ma wax léegi léegi rek ku ci am sa gel ba nga am sa far ngir yàlla yonte bi couple bi soo leen mënee def seen affaire yu mool sant lu rafet ñëw toog esat incha allah yàlla mooy ñu ndam ngeen dem feede seen 31 mu gën a neex loolu laa leen ñaan amul tas amul laqatu ay ruku amul dara ñëw leen esat caat loo mën a waaj waaj ko yaag say mbokk de billaahi wallaahi am nga combat am nga combat de combat boo mës a am bu yow nga xam ne bii bii moo ci rawati yaa ngi bëre combat boo xam ne caatu ngeen ëppoo doole gënoo ñeme dàqoo xeex dàqoo bëre dàqoo dara dara dara dàq koy làmb yaa koy bëre ok baax na man aw fit man aw ma fit mais damaa ñeme loolu la yàlla dogal baax na lébu ay champion lañ lébu ay champion lañ ay germi lañ ah ay ñun maanaam ñu nangoo liggéey lañ xam nga di la nuyu waale au passage tamit di nuyu waale waa Yoff Yoff Farma Yoff lu ma fa am say supporter lakk mënu ko jeexal am naa fa sax turandoo Diop junior bu Yoff tamit xam nga ak Diop bu Ngor tamit maa leen maa leen maa leen lancé wàllu yàlla xam na ne Yoff lu ma fa mën a génne caatu ngeen mënu faa génne billaahi wallaahi taala xam nga di cek-cek yi ma fi aa cek-cek yu yi ñoom Amet boo yëpp maa leen di woo si làmb ji di leen siyaar bu baax a baax a baax a baax man Diop de international la du ma Diop doo ruxu du ma Diop de koñ mbëru international la ni ma waa Sénégal di supporté noonu la ma diaspora bi di supporté xam nga di nuyu sama grand badaloo xam nga di ko nuyu bu baax au ñoom kàddu gi di leen woo si làmb ji ku ci mel ni Pino moo nami moo frère borom Italie xam nga borom caawa mi ne seera understand ci def bene bëgg naa nga may ma xaalis bëri si lamb ji am nga loo ma joxoon mais bëgg naa nga doon yokk xam nga xaalis doy yokkal ku ci mel ni Dame Dame Tarkinda borom Italie tamit maa lay waat si lamb ji xam nga bi diaspora bi képp ku fa nekk rek di bëgg a jóob rek maa lay woo Dame Thioune doomu yaay doomu yaay zugale maa ngi koy woo ma fi yaa États-Unis ku ci mel ni Mor ku ci mel ni Mor ma fi yaa bi Mor Gaye ah euh, mu tudd Saliou Ndiaye Babacar xam nga Khalifa ba fi États-Unis instant bi États-Unis sama subordonné xaaj bi yëpp a ngi États-Unis bëgg naa nag ku na ma may 5 dollars 5 dollars ñaata la 5 dollars 5 dollars baax na loolu bu ma ko joxee ñëpp waaw neuf su ma la nee 900 dollars la ku ne 900 dollars a feesal bëgg naa ngeen naa waaye ku nekk 900 dollars dollar 5 waaw jub leen su ma la naa ko yokk 900 900 dollars baax na xam nga gannaaw taxaw moo ne moo feral Grand Tafa jëndal Grand bëgg naa nga jënd ma xar si ji nag mu commencé dibi nang-nang waaw xam nga entraînement laaj ay affaire waaw noonu la demee salaam borom Bergamo moo nangee moo ferat maa ngi lay yaa salaamu aw ma sa fay borom comico xam nga xam nga loolu noonu def si kot xam nga rek ñaaxarañ loo moo nangee moo ferat borom Medina maa ngi koy si yaa ngi di ko nuyu baax kala Mboy Gueye Bib Diop moo nangee moo ferat di ko ñaanal ndam si kaw bébé Bébé Garga ndaamu la day jug biib doo nga xam ma la wax baax baax baax yàlla la suñu borom may ndam sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp sama sama sama ménageur Mataar Njaay sama waay la sama mag la sama père la sama lépp la maa ngi ko nuyu passage Fallou Ndiaye Ndiaye global business borom Kewel info xam maa lay sant bu baax baax baax baax baax baax di la gërëm di ñaan nag journée bi ni nga am si résultat total waaw ndax loolu galaa la galaa la neex la galaa la xam nga Valdo sama maa ngi koy nuyu di ko gërëm waaw parce que moom làmb ji dañu see jëriñ lu garaaw garaaw garaaw garaaw garaaw Valdo borom m nuyu naa ko bu baax a baax di nuyu def ko am tamit quoi xam nga waaw Boy Sall am na kii Maw ki sama doom la kii moom sama doom la ku bëgg a gis doomu Diop de rek caméra ko sama doom a ngi sama fils a ngi nii. Ah. kii mooy sama fils mais kii moom sama deret la loolu la yàlla dogal Sall xam nga. kontaan naa ci bilaay maa la gën a kontaan.